màggal gi moo di ndigal lenn nu mu fi ko digal murid yi koy gëm te gi moo ay ca batay ñu ngi fi ci ki nga xamante moy mooy bi nga xamante moy suñu sunu euh, dëkk bi nga xamante moy dëkk suñu am chama Chamadou Bamba Xaadir sul ñu santé kenn kenn ci Baye fali fekk ko fi nga xamante moy mooy daluwaay mu joggé ba Dakar inshallah rabbi dañuy waxtaan ak moom ko dëkk bi nan la ko gënalé mais avant tout damay nangu café gi ni <laughs> gëna mi ziarna wa délo nañ ciar soxna ci ñu ngi leen bu baax di leen ciar di leen di leen wax ngeen dal ak jamm Euh, di am mbégte bu baax ci dalal bi ngeen ñu dalal. soxna si naa def. sant Serigne Touba ak Cheikh Rafaam. maa ngi lay yaa ngi yor sa kurus de. waaw sa lépp rek di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul. yàlla na yàgg noo tudd. Amin barke Cheikh Xadim man soxna Baali Sikuru laa. fii nga dëkk. man Louga laa dëkk nag. Louga nga jóge ñëw laa jóge ñëw. Euh, ngir bis bi rek. ku fi ñëw rek. lenn rek war na laa yëkkati muy bis bi. waroo cee boole leneen. di yëg sëriñ bi di di dund sëriñ bi di ko kennal ci barke maam Cheikh Ibra Fall Baabul Muridiine waaw di santaat nag Cheikh Ibra Fall bu wér a wér a wér ndax bu du woon ak maam Cheikh Ibra Fall kenn du jariñ ci Seexul Xadiim kon sëriñ Touba dana ñëw ba dem kenn du xam mooy kan waaye maam Cheikh Ibra Fall moo ñëw wane sëriñ Touba Xaadimu Rasuul wan ñu ñi nga xamante ni nag ci la ñuy dox ba ba dund ci ak taalibe wan ñu tamit ci li nga xamante ni ci la ñuy dox ba dund ak tarbiya ak taalibe ndax moom moo ñu jàngal tarbiya ak taalibe euh, euh, taalibe mooy lépp lu mu am rek dox sëriñ bi noonu la euh, Baye Fall di dunde moom la maam Cheikh Ibrahima Fall Babu Mouride daan daan dunde léppam da ko joxoon Cheikh Sëriñ Touba Xaadimu Rasuul musu koo booleeg lenn doon benn nopp benn bët benn tànk léppam maam Cheikh Ibra Fall léppam benn la léppam rek kenn da koo kenn la Serigne Touba Xaadimu Rasuul. man nga jóge Dakar. waaw man maa ngi jóge Dakar Touba Malika Malika si dakaar waaw. ba nga ñëw ñaata nga paas. waaw man maa ngi ñëw ak sama soxna ak sama waajur ak samay doom daanaka ñoom ñëpp 2000 laa leen paasal ku nekk. waaw. loolu Ndiaga Ndiaye yi la bus yi waaw moom laa jël waaw. nan la dëkk bi ganale. waa dëkk bi moom xam nga ñun moom dañuy sant rek. waaw parce que soo gisee sax daanaka teel nañoo ñëw ndax ñu ngi fi egg si mardi si ngoon parce que comme que dañ déggoon ni euh, train bi ren du daw. motax ñu téla fagu tamit comme ko damay and ak tamit ay njabot gu sew ak yoyu motax ma téla manam préparer pour and ak ñom ñow bala yoon bi di xat waaw waaye sant nañ bu baax dal wa ndax choono yu mësanti jankontel ci yoon bi tamit suñ excès rek ba gis suñ bërepp bu tedd bi ak soroor yeeg fal rek coono yépp dañ koy fàtte tamit dañuy santaat bu wér ndax ki nga xam ne tey jii moo waral màggal geeg borom bés bi sooy xool li tawfiix bi mu ñu mu ñu mu ñu defal yépp rek ci ay coono la jaar pour mën ko am waaw kon nag ñun dañuy santaat bu baax daal waaw. man damaa ñëw fekk la nga das sa kër sëriñ. Mm-hmm. sëñ bi nu mu tudd. waaw yéen a ngi kër sëñ Cheikh May mu sëñ Abdou mu sëñ euh, Soxna May Kubra mooy waajuram bu jigéen euh, sëñ Abdou Xaadar Mbacke ndijaay la si moom waaw moom sët sëñ Touba direct la moom nag làkku na. def boobaak léegi def na ay juróomi at waaye xalifaam mi ngi fi waa këram euh, xalifaam di sëñ Mor May ak ñoom ñëpp ñu ngi si biir waaw. lan ngay conseil ñi nga xamante ñëw nañ ci bërëb bi nga xamante ni mooy bërëb suñu maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul. ak sa waaw soxna si question bii nga ma posé dama koy dama ciy kontaan di di di ko rafetlu di ci am mbégte bu baax. ndax li ëpp solo mooy loolu tey jii soo fi ñëwee nga euh, sàmmonte ak àqu bërëb bi. waaw ndax bërëb bi moom bërëbu jaamukaayu yàlla la bërëbu sellal la bërëbu tuub la te bés bi tamit comme ni ko borom bés bi waxee waxul sant leen ma waxul santale santale leen ma Seydina Muhammad sangam bi dañuy santale leen ma yàlla suñ boroom waaw kon nag faaw tamit ñu gëstu li nga xam ne tey ji mooy mooy maanaam euh, point yi nga xam ni moom mooy tax màggal gi mën a mën a mën a mën a jaar ci yoon muy cant gi première jàng arxuraan jàng xasida lépp loo mën euh, comme ni ko xalifa bi digee avant màggal gi digal na murit bu ne soo ko mënee euh, nga wàcce ñetti kaamil soo ko mënul nga gis ñu la mën a jàngal ay kaamil nga neexal leen lu sedd seen xol ñu defal la ko xam nga yooyu nag moo niy jariñ waaw yooyu yooyu daal moo ni jariñ maa ngi maa ngi ciy soññ nag ñëpp bu baax a baax xam nga tey jii soxna si ñun Dakar dakaar lañ jóge fa lañ juddoo fa lañ yaroo fa lañ màggee te nekkoon nañ si yoon boo xam ni tey jii doyoon na waar lool waaw saayire woon nañ lool waaw man mii ni may gisee dama daan rab di berek waaw yàgg naa toj ay concert Dakar yooyu mais dama jékki-jékki maanaam ba ma commencé gëstu sëñ bi la la ma détourné si lu bari ba léegi mën naa la wax ni musique mënuma kaa dégg su ma koy déglu day mel ni ay potu meew la ñuy tëgg sama nopp yi kon loolu dañ koy sante ku tedd ki daal waaw ndax moom jamono toll na foo xam ni daal ñun sant rek moo ñu war surtout suñ génération bii euh, nga xam ni mooy jeunes yi nga xam ni actuellement ñoo nekk parce que jamono mondialisation fi mu toll nii ah man de sant naa bu baax daal. waaw wax ji daal moom xam nga damay tuub sax si kàddu yi ndax mënewuma ay wax waaw. mais mbiru señ bi mom jëf la jëf jël comme niko mam Cheikh Fall wote waa di ci soñu ñepp rek di wax tamit nit ñi ñu gëna défarat jikko yi waaw di xam li li nga xamni mo leen war si bés bés bi ni ñu nekk ci te lepp lo xamni rek ay téré la ñukay daw waaw ndax euh, ku tedd ki mom mbir mi du ay fo waaw mbir mi du ay fo dal du ay tiaxan tamit waaw manki ngi ciy soññu sam bop di ci soñu ñepp rek waaw di ci soñu ñepp waaw comme limay wax sank ben mbokk talibé Eh, fii ko hamni mi ngi dëkk fii Touba dama ko gis mu davala sama morom la davala Chris Koros mais yooyu dama koy ñaawlu bu baax metti na ma torop parce que man yooyu dund naa ko mais ku tedd gi dimbali na ma bañ bañ si ak samay morom yu bari waaw te tey jii ñun ñi nga xam ni ñoo ñoo Dakar nekkoon si Zaire bi sëñ bi dimbali ñu bañ xam tawféex bi nga xam ni la bi am waxatuma laa ñi nga xam ñoo dëkk si dëkk bi nag tamit war nañu gën a seetaat seen bopp tamit waaw ndax di gis xale yoo xam ni tey jii dañuy dabalaa di sol ay façon solin yoo xam ni tey jii du image bu rafet si gan yi fiy ñëw parce que suñ gisee tey jii ñi fi dëkk di yor benn image bi loolu dina pousser gan yi fiy ñëw ñu defa ni loolu c'est permis euh, euh, dañ ko permettre fii daal waaw waaw maa maa leen sant daal baax Masyaallah, allah fi mel ni taalibe lañ taalibe pire lañ santel de. ah ma ne ko dafa mel ni lañ santel mais ba nga Louga ban eh, ba nga ñëw Louga ñaata nga paas. Eh, waaw wax dëgg nag lépp rek ci xéwlu Serigne Touba Xaadimu Rasuul eh, paasuma waaw paasuma waaye lépp rek ci ci xéwlu Serigne Touba gi la. barke Cheikh ñaan na seen lool ndax solo lool Masyaallah. di soññaan ñëpp nag di leen xamal ni murid yi su ngeen sàgganee tubaab yi ñooy ñëw nangu bi liggéeyal ko moo tax maa ngi woo ñëpp daal ñu gën a laxasaayu te ñun waa dakaar ñi ngi wax waatu baa jeunes yu fi nekk suñ sàgganee ñun waa dakaar dinañ ñëw parce que dañ bëgg doon ngaakay kay sëñ bi liggéeyal ko du laxasaayu doon ay Baay fal comme que nag li ma fi gis jeunes yu bari dañ bëgg nekk ñoom ay nandite maa ngi leen di soññ di leen wax ñu gën a góorlu te gën a takkaat laxasaay ñu gën a mànkoo déggoo waaw merci jërëjëf sëñ bi. jërëjëf. kafe euh, gi neex na. ayca gis nga gis ngeen conseil yi nga xamante ni moom la joxe euh, ñu war cee bàyyi xel bu baax a baax euh, mooy lépp boo ko analyser mooy ñu yokk yar yeeg yar geeg teggin gi ci bërëb bu ñu mënta dem euh, ñu ngi noonu sax ba léegi ñu ngi El Vision Média nekk si dëkk suñu maam Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul muy Touba di waaja 18 safar gi la dimanche incha allah nii lañ leen koy euh, chaque jour nañ leen indi lépp loo xamante ne am na fi ci màggal gi waaye itam lépp loo xamante ni laaj na ko laaj na ci màggal gi ñu def ko incha allah rabi dinañ ko def ñun waa El Vision Média